Euh, numéro whatsapp boobu nag nga xam ni 78 211 68 68 ku ci wootee ci émission bi euh, doo mën a jàll euh, waaye tamit vidéo ngay def pour dugal ko wala nga am thème boo xam ni bëgg nga ñu laabiré ko mën nga cee woote tamit di ma jot wala nga envoyé ko ci whatsapp bi audio dinañ ko jot incha allah maam Sidi dafa am benn femme boo xamante ne si moom dañ am doom waaw ah, te doom ji jigéen de à l'âge de douze ans te fi mu nekk nii depuis mu nekkee xale ba léegi la koy samay mbokk mujj a gis te terewul li ma war ci moom suba ngoon guddeeg bëccëg maa ngi koy def léegi nag moom téye na sama doom chaque vacance au lieu que mu bàyyi ko mu dem ci samay mbokk de mu jël ko di ko bàyyi muy dem ci daan ànd ay séeréer yi koy liggéey ay mbindaanam di ko boole ak ñoom ma dem ba sonn ci ci ci ci ci affaire dem ba maar ci certificat de divorce mi ngi ci troisième mariage am te xañ ma ci samay droit léegi nag dem naa ba sës ba sës xamatuma nu may def sama doom ñëw na war naa ko lépp wax ko lépp mu ma ne ma léegi pap sama yaay boo ko yoon ma seetaane moom dina dina dina ma gaañ wala dina ma def leneen ndox ko xamante ne si ne gënul ndax dafa am beneen doom bu góor boo xamante ne si ne laataa ñuy sëy man kooku juruma ko muy boole ñaari xale yi ci benn néeg te xam nga ne jigéen na góor kenn wër loona boole ci benn néeg donc jot nañ dem tribunal nag le 11 février bi passé ñu joxaat ñu rendez-vous le 24 mars ma ne woon nag xam nga danaa leen ko wax daal bu fekkente ne man ngeen ma cee dimbale te yàlla tax ngeen dimbale ma ci parce que affaire de moyen la may jaay ndax nee na ma euh, danaa la tëj ndax certificat de mariage ma am te certificat de mariage naa ko man defaruma ko gis bi kar wax na ko nee ko boo amee dara loo ciy xeliyaat nga dem yóbbu ko ca mairie ba su ma sajoon nag di ngeen ba ci dimbale daal te yàlla tax dafa am benn femme boo xamante ne si ne maa moom dañ am doom waaw ah, te doom ji jigéen de à l'âge de douze ans te fi mu nekk nii mu nekkee xale ba léegi la koy samay mbokk mu mujjee gis te terewul li ma war ci moom suba ngoon guddeeg bëccëg maa ngi koy def léegi nag moom téye na sama doom chaque vacance au lieu que mu bàyyi ko mu dem ci samay mbokk de mu jël ko di ko bàyyi muy dem ci daan ànd uh, ay séeréer yi koy liggéey ay mbindaanam di ko boole ñoom ma dem ba sonn ci ci ci ci ci dem ba maar ci nag te man ak moom am nañ certificat de certificat de divorce te actuellement mi ngi ci troisième mariage am te sama doom xañ ma ci samay droit léegi nag dem naa ba sës ba sës xamatuma nu may def sama doom ñëw na war naa ko lépp wax ko lépp mu imposé ma ne ma léegi pap sama yaay boo ko yóbbul ci yoon ba ma seetaane moom dina dina dina ma gaañ wala dina ma def leneen ndox koo xamante ne si ne gënul ndax dafa am beneen doomam bu góor boo xamante ne si ne laataa ñuy sëy man kooku juruma ko muy di boole xale yi ci benn néeg te xam nga ne jigéen góor kenn wër loon a boole ci benn néeg donc jot nañ dem tribunal nag le 11 février bi passé ñu joxaat ñu rendez-vous le 24 mars ma ne woon nag xam nga danaa leen ko wax daal bu fekkente ne man ngeen ma ciy dimbale te yàlla tax ngeen dimbale ma ci parce que affaire de moyen la may jaay ndax nee na ma euh, danaa la tëj ndax certificat de ma bi ma am ak yow baaxul te certificat de mariage ma